non mais eh du ma yàgg de fat-fat la fat-fat dama dama yeewu sànq vite fait xam nga fekk <laughs> seen yambar bi <laughs> aram aram mën na duul ba pare aram yambaree na du ko aram neeru wéy bon sama gars yi comme que gars ñu ñuy xaar si gi son gàmmu gi <laughs> mun naa mun naa waxu gàmmu gi man gàmmu gi sama nekkatu si gàmm gi nii sama nekkut si wéy comme que ñu dañoo am xaalis boo ñu fay réalisateur bi ngaa ko fay mu defal ñu réalisation après gis nañ ngaa ko liggéey ak benn réalisateur nañu continuer waat fay bon déjà jaare yaay déjà su ma nee déjà da nga naan su ma nee des da nga naan non non non non déjà déjà waxal déjà déjà Dèjà Dèjà Dèjà moom gars gis ngeen Dèjà Dèjà moom bëggul coow man naa man Arame duul muy duul si réew mi Arame war ngaa rus nag laaj naa la kii Camaro nga indi ma ay plaque te soo doon defloo naa wax bi moom xam naa ko moom Camaro bi soo doon defloo naa wax tur bi de waaw te su ma nee la kooku yéen ñaar yéen a bokk papa wax ngaa xam kan laay wax sa doom baay la bëgguma tas ay kër nag mais sa doom baay sant ko nga gërëm ko. waaw su ma nee sant ko nga gërëm ko sax tur baa ngi ci biir sant ko nga gërëm ko borom Cameroun bi waaw sa onda bu rouge bi tamit xoos xoos si nekk bëri na de doo ko peinturaat onda bi ah ngeen les gars yi bon <coughs> loolu benn parenthèse la woon rek génnee nañ effet de l'air man à ma grande surprise maa ngi naan si boy sama gars yi ñi xam nga dañuy dem dañuy dem États-Unis lañ jëm wala. tem tem ñu jëm kii biir Panam. hii li ma xasoon denc assur naa génne ndekete gars yi Gambie lañ doon dem Gambie effet <laughs> de bi Gambie lañ doon dem Gambie ah, dem ba aéroport nag yóbbaale réalisateur bi di dugg Gambie yéen war ngeen dul sax yox Sénégalais yi effet de l'air nit ñëpp di xaar foofu leen jëm ndekete Gambie ngeen jëm Gambie ah. daba nag sol nag ak casquette bi nag sol xoolal tubéy bu orange bi nag pour fës t-shirt bu orange bi daba daba loolu du solu aéroport aram tamit yow Gàmbi bi nga jëm di sol ay pull ay ngandum pull mel ni ku jëm Gàmbi nga jëm saay slow down slow down Gàmbi Gàmbi nga jëm di sol effet de l'air ngeen wax Gàmbi merci beaucoup merci beaucoup merci merci bébé yaa ngi dégg ndege ne Gàmbi lañ jëm Gàmbi lu si jar ay sol ay pull ba pare nag tey nag laa xam parce que parce que gars yi rate nañ seen vol léegi léegi oh. rate nañ vol bi donc biir aéroport parce que xam nga fii moom Sénégal la rate nañ vol bi aéroport mais Gàmbi la billet bi seerul soixante quinze mille la mën nañ ko mën a jëndaat nag wax dëgg yàlla ngeen dem waaw bu nekk bi beneen dëgg day metti mais billet bi da ngeen xaar vol bi si topp ngeen jëndaat billet d'avion soixante quinze mille loolu bëriwul ngeen dem comprendre maa ngi xaar nag kii bi maa ngi xaar effet de l'air bi bu effet de l'air bi génnee wax naa la nga génne ma samay valise boo si kanam tuuti maa ngi xool ba xam damay dem tey si naar bi Paris wala suba incha allah rabi bu fekkee egg nañ Gambie laa ba installé. le lendemain naa takk sama bagage dem dem Paris ah wala ma dem itali mun naa dem Suisse Belgique tu vois wala Nice ça dépend si envie bi may am rek quoi yaa ngi dégg. donc euh, on est bon yi duma ci yàgg ah. donc ci kanam tuuti ñu suivre suite logique bi xool bu ñu eggee Gambie peut-être voilà fan la ñuy tourner Sénégal bi ah wala. Séné Sénégambia wala xaw fan la ñuy tourné si kanam tuuti ah da ngeen bàyyi insister boo leen duulee su ma leen waxee duul leen ngeen rangé seen bagage yi. si kanam donc boo leen demee eggee gàmm ngeen def ma signe wala ngeen posté benn affaire ah. sinon peut-être tey si ngoon wala suba suba maa ngi xool ni soit Air France wala Air Sénégal ban moo gën a disponible pour tey tonight wala demee après ñu dugg ñu dugg Pana mënoon ngeen dem Dubaï nag sama gars yi moo gënoon jekk si affaire bi tu ma ne leen ngeen am xaalis kamburoo yi ngeen duul ma ne ok coow jiwul méttiwul ñaata at ngeen am ngeen yéen a ma mag ma ni ba tey coow loolu méttiwul effet de l'air Sénégal yëpp di xaar foo leen jëm ngeen bëgg a dem Gambie sama yaay si kanam waaye maa ngi naan tee bi su ma paree en attendant ñuy génn ñu déggoo ay ciao.